France dañu ne la justice est à terre mooy si suuf la daan mais xam nga DER dëkk boo xamante ne dafa am faux décret am faux arrêté standard yëpp wàcc il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive à la justice lu dal justice moom mooy mooy le miroir du Sénégal d'aujourd'hui parce que miroiru dëkk mooy sa justice d'abord la justice tey business bi la grève des greffiers yoo xamante ne yàgg na fi mais les entre tout ñoo xamante ne ñu ngi prison toog di xaar seen sen kii ak yeneen dossiers yooyu yëpp muy def trois mois comme ça et c'est normal au Sénégal juge boo xamante ne ay pression comme ni ko waxee dafa yàgg am fi mais pourquoi parce que le mythe du juge n'existe plus mais dañ ko liggéey on a déconstruit le mythe di mm-hmm. juge dëkk boo xamante ne amul mythe doo dem mm-hmm. ce n'est pas possible te Sénégal amatu fi mit dañuy convoquer ay religieux foog nekk tout se tout est construit autour de ça non dafa am yeneen. mais Charles kañ la ñu déconstruire mythe boobu ni wax. le euh, man ça fait. ça a depuis, commencé quand euh, commencé avec la, la première alternance. Mm. il faut loolu tax il faut que ñuy suñuy suñuy politologues yi suñuy criminologues yi suñuy noonu il faut que ñuy am ay réflexions yoo xamante ni dañuy toog xalaat. pour mun a xool loo xamante ne mun a ñu réorienter affaire yi mais le Sénégal le mythe moo daanu abatul mythe fii religieux à part religieux lu la neex def religion nga fiy waxal nga bañ a d'accord sa wax benn kii ñu ñëw fekk la régler ce problème mais à part ça tout est tombé l'autorité ne veut plus rien dire dans ce Sénégal là l'autorité président de la République day wax gars yi ne ko déet fii nii lañ koy defee dara nit Sénégal lay toog fii dëkk Sénégal ñu ne la non il n'appartient pas à l'État du Sénégal de décider mais qui est au-dessus de l'État du Sénégal donc waxante dans un pays où on est comme ça et vous étonnez après que la justice soit complètement par terre mais pour ça mm. moo fi nekkatul le mythe du juge n'existe plus mm. léegi comme l'a dit le juge qui autant pour moi maître Sokhna Kane mais les rapports entre les jeunes et les anciens le conflit de génération de dafa musa am demal ma ñëw la mm. maintenant tout est dans la forme loolu laa doon wax kanko mm. mais kan la ñu yar quel est le sénégalais qu'on a construit c'est pas parce que da nga jàng da nga jàng pour nekk juriste point final hein mais quelles sont les valeurs intrinsèques yoo xamante ne da nga koy da nga koy yar sa kaw surtout ça valeurs yooyu kan moo la ko jox loolu yëpp loolu laay wax quoi ça veut dire que aujourd'hui c'est le contenu le Sénégalais le contenu la ñuy dugal ci biir Sénégalais pour mu mun a taxaw am attitude boo xamante ne mooy déterminer son altitude tant que ñu newuñu ci loolu dans cette formation là on aura des gens avec des diplômes mais yoo xamante ne dañuy dem ak di ñëw mais aucune aucune valeur te loolu j'ai bien peur que loolu moo ñu dal actuellement maanaam la justice à la barre waaw justice à la barre euh, xëy na yàgg na fi parce que y a beaucoup de d'injustice dans la justice parce que bu ñuy évoquer problème bi tey en nous appuyant sur le conflit des géné de génération fépp la am tey ñoom dip d'accord uñu ak ñun rappeur rappeur yu yàgg yi partout mm-hmm. parce que pour ñoom ay has-been lañ ñun xewi nañ xam et cetera ay fekk ne ñun ay has-been lañ sax quoi parce que has ay has been lañ ci technique gu rab bi ci flow bi et cetera et cetera. Euh, même ci façon gu sol bi am na noo xamante ne tey su ma ko soloo taxaw sur scène di rab je ne convainc pas ci nouvelle génération bi ñi ma ci mën a convaincre bëriwul. Mm-hmm. donc et puis ñëpp xam nañ ni bu fekkee da nga nekk ndaw da ngay euh, am fougue da ngay am tel dangay am esprit rebelle mais. mais mais mais daal excuse-moi mais le mythe que tu es. oui si on te le refuse. oui cest à mais li ñu war a mun a comprendre muy diggante mag ak xale. le rapport ne doit pas être conflictuel il doit être complémentaire. c'est-à-dire am na lu mag mën a jàng ci xale. am na lu xale mën a jël ci mag parce que mag aussi daf fi nekk mag moytul ku fekkee démb. ku fekkee démb am na lu mu xam donc da nga ci tarbiyu am ci loo xam mais buñ ñëwee ci affaire bi mooy politique def ci dugg bu baax c'est-à-dire buñ demee ba mu am benn loi en 2017 ou en 2018 par rapport à lage de la retraite dañ ko indi à 68 ans mu concerne les chef de cour cour d'appel les magistrats mu concerne effectivement ku ñenn ñi ci cour suprême les avocats généraux procureur général et cetera et cetera mu jox leen ay opportunités donc en fait il faut qu'il y ait un certain compromis compromission boobu muy indi c'est le politique moo dugg ci biir affaire bi parce que au départ il y avait pas ce type de problème là parce que si la retraite était harmonisée la retraite n'est pas harmonisée au nom de quoi la retraite n'est pas harmonisée et puis aussi au niveau des affectations c'est pas démocratique comme chez les enseignants chez les enseignants da ngay ramper pour nga mun a jàngale si Dakar il faut que tu trimes il faut que nga jàngale ji Kolda jàngale ji Thionckessil Thionckessil Sinthiou Bamambé et ça xam nga et cetera et cetera après nga dem Louga nga dem Louga Dougou et cetera ah après ñu doon la indi Dakar après ñu doon la indi Dakar ñu ne kii il a exactement mhm. mais affectation yi amul démocratie ci affectation yi su fekkee man booyu Charles la oui en terme d'affectation kilifa yi fa nekk yi nga xamante ne les politiques ñoo leen fa teg parce que en fait pourquoi mhm. ñu yóbbu ko à 68 ans ñenn ñi cour d'appel ñenn ñi cour suprême effectivement wala ñenn ñi sax ñu yóbbu leen conseil constitutionnel c'est-à-dire qu'il y a la mainmise de l'exécutif mhm. sur c'est sur le sur le judiciaire. Mm-hmm. donc fan la ñu nar a jëme mooy de plus en plus dañuy dañu dañuy dem bay yolomal li nga xamante ne moo fi am doole. Mm-hmm. imaginez aujourd'hui ñu dem ba suñu militaires yi nekkatuñu ay républicain je parle même pas de la justice c'est-à-dire lii raam dugg ci justice bi ñu koy naq saale mu raam effectivement ba yegg si si armée bi. niveau de corruption bi yeeg clientélisme politique am c'est-à-dire c'est nos autorités politiques qui doivent avoir loolu moom exemple boobu kiiwul. c'est impensable dans l'armée. non déet bul wax c'est-à-dire euh, corruption. corruption l'armée sénégalaise. non dama ne la mm. clientélisme politique ak corruption mooy yóbbu réew. mooy jaxase réew. absolument c'est-à-dire il ne faut jamais dire jamais. jamais absolument d'accord. il ne faut jamais c'est un comportement parce que quand même bu la nit ñi falee wóolu la pour que tu conduis la destinée de ce pays la ci ay lendemain yu gën il faut quand même un peu de décence même dans la répartition des fonctions même dans la répartition des postes c'est-à-dire on peut être jeune être méritant mën imaginez parce que une personne a refusé un service à son supérieur une faveur bi nga xamante ne bañal naa Charles ci biir tele bi par exemple yaama neex buuba ne ma buuba ne ma woy mais malal buñ toogatee émission comme que maa la indi ci tele bi toroxalal ma diw ma ne ko mais sur le principe wax dëgg buuba moi je ne suis pas je ne veux pas être un béni-oui. pourquoi yow exemple. en fait parce que dañu yàgg na. voilà l'exemple là. non c'est-à-dire que mënu amul ñeneen njàngam mi ngi fi. waa léegi euh, Charles Faye mi ngi fi. Euh, euh, keneen ak teggi ma kii quoi. sama doomu ndey nga. ba pare am na am na lu ma bëggoon wax si rab boobu mu doon wax noonu ah. naan ndax o oh, kii la ah. en bi ma ko album bi ma ko bi ma ko produire ah. li mu waroon rab yëpp dama ko ci rab non ba pare album bu mel noonu kenn rabagul lu tol noonu lu tol noonu bi rab bi nekkee rab ba tey ba koo koy dégg eh non ça il faut pas dire ça par rapport aux autres wax la nag c'est l'un des meilleurs producteurs de ce pays bu la nee lii day dox day dox. man dama ñëw dama lay nekk. non dëgg même ma ter ma ma tergiver. Ah, non non nga hors sujet. ma hors sujet dama ñëw quoi. taximan. ma ñëw mu ne ma dama buggoon nga def ak Viviane taximan. ma ñëw di bindaay affaire bi jaay garaaw mu ne ma xam nga la. defal ma ci Fou Malade ma def ci Fou Malade après ma def ci Fou Malade après sound bi def c'était le type le type. pour wax la ni en fait c' est un excellent producteur mais par exemple boo ma santoon tey ci télé. oui pour revenir aussi. oui boo ma santoon tey ci télé bi pour ma xas nit parce que en fait yaa ma fi indi parce que yaa d'un point de vue hiérarchique yaa ma yilif ma ne la mënuma ko def nga ne am ngeen antenne fële guddoom nga yóbbu ma fa. mais du yoon du yoon c'est-à-dire il faut que ces pratiques là cessent looloo yàq réew man en euh, xam naa ne émi deuxième partie bi lu gaaw lay doon quoi lu gaaw lay doon parce que en fait moom lay wax ni pour euh, xam nga boo déggee sax euh, c'est vrai que man bon